salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice Rewmi FM daleen na jàmm seen émission sans filtre moo di jotaay ndaw ñi fii ci Rewmi FM euh, tous les mercredis de 15h à 16h euh, tey nag spécialement on s'est déplacé euh, ñëw seet suñu coach coach maison moom mi ngeen dégg saa su nekk lépp lu xew fii ci comme actualité moo tàmm di ñëw rajo di ñu ko donc analyser tey nag dañ ko fekk si ba si biir këram fas yéene enregistré ak moom émission bi coach ñu lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu mbokk auditeur mi FM alors bi salaamaaleykum wa rahmatullah auditeur ak auditrice yu réew mi FM laata mooy wax lenn rek dama lay masawu parce que xam nañ ne tey euh, li ñu daan daj bu ñu daan ñëw bu ko raw nga daj yow voilà voilà <laughs> santé gis nga bi nga ñëwee da ngaa ñàkkoon cela prouve que ni rek ku bëgg sa liggéey nga parce que xam nga comme moo leen di dañoo nekk si métier boo xamante ne moom soo ko ñemewu rek doo si sori. Mm-hmm. et on a vu depuis macha allah. li nga xamante ne moom nga ciy def en tout cas ñun dañ lay ñaanal que un jour que tu sois au delà de tout ça incha allah yàlla am na ko mun na ko beneen bi mooy dina wax ne tey nag laa gën a am mbégte parce que bu ngeen daan seet maa daan ñëw mais tey yéen a ñëw. Mm-hmm. te nee nañ gan moom bu mu nee bàyyi lépp ñëwal la rek dafa laa gën sax kon bisu tey bii nangu naa ne yaa ma gën. Mm-hmm. voilà donc merci et que tey plaisir bu ngande la di la wax dalal ak jàmm yaa ma daan wax dalal ak jàmm. mais tey moom maa la wax dalal tey moom yow yaa may dalal vraiment. Uh-huh. Euh, contentement la si man vraiment ñëw fekk si la fii sa biir kër ci sa bureau pour ñu toog ñu waxtaan. Mm-hmm. Euh, lii day wane rek mooy yéen amuñu seen fay amuñu seen fay saay buñ leen soxlaa ngeen bàyyi seen lépp seen liggéey seen lépp mm-hmm. euh, déplacé wu ak yoon bi du muy méttee parfois vraiment euh, chapeau à vous chapeau vraiment ñu ñoo leen di sant. bon xam nga xam nga vice c'est vice versa mm-hmm. parce que xam nga tey ay nit buñ complémentarité la. tey ñun li ñu am suñ leen amul woon yéen askan bi duñu mën a jot ci li ñu am. mais yeneen xëy na su ngeen ñi amul woon du ngeen mën a am ndëgg sërëx wala fu ngeen mën a téye suqaliku ci ci par rapport ak li ngeen wax mm. donc ñun ak yéen cest à benn équipe la rek kii mën a féete góol kii nekk buteur bi mais l' ensemble nous formons une équipe. dëgg la ah, ah, ah. merci beaucoup en tout cas coach Moustapha Sy euh, nekkatul gan fii ci réew mi FM vraiment di ko sant di ko gërëm donc tey li ñuy waxtaanee rek moo di élection législative yi. Mhm. Euh, gis nañ ba ñu defee élection locale yi yàggul euh, mhm. si mois lañ ci teg daanaka presque tey ñu amal élection législative yow déjà ban jàngat nga am ci élection législative yi nga xam organisé Sénégal organisé organisé na ko mhm. euh, mu mel ni réussir na le pari de l'organisation parce que en l'espace de six mois mu organisé fi ñaari élection mhm. alors euh, defe naa loolu day dellu ñu wax euh, chapeau par rapport ak njiitu réew mi parce que man je dis parfois je suis analyste je mhm. nag Sénégal moo ñu ñor et que ñu koy wax chapeau parce que c'est pas facile déjà rek d'organiser d'organiser une élection parce que tey def élection mu gën métti boo dee seet ci réew mm-hmm. mais loolu it day dëggal ne Sénégal réewum démocratie la mm-hmm. mooy Sénégal xëy na wax mun na fi bëri xiiro yu bëri fi ŋaay yu bëri fi lu ne am fi mais il faut ñu nangul ñu ne dëkk la boo xamante ne démocratie dafay dox mm-hmm. et effectivement defe naa yéen ñi nekkoon sax sur le terrain yéen ñëpp remarqué ngeen ne lépp luy matériel ci bureau wala centre de vote yëpp bu ñu munti dem lépp loo xamante ne rek mat na te mu doon loo xamante ne moom la ñuy xaaree ci nguur wala ñi nga xamante ñoo toog euh, tey pour mën a defal lépp matale nañ ko mm-hmm. donc tey mën nañu wax ne alhamdulilah am nañu élection yu mucc baay et beneen biit mooy par rapport ak élection yi ñu doon gis yi passé ak yooyu par rapport ak violence yooyu xëy na bii néew na sax luñ ko gis amaana sax mën nañu wax amul. parce que mm-hmm. bu njëkk ba da nga doon gis soo demee deux centres trois centres da nga fay fekk benn boo xamante ne c'est violente nit ñi commencé xiiroo fi nga mais au moins bii bon peut-être xëy na nag c'est dû peut-être ak bi enjeu bu mu waroon am amul. parce que nit ñi ni ñu waree comprendre lan mooy élection législative lañ comprendre Sylvie alors ça ça peut xam nga xam nga tey euh, Sénégal defe naa élection présidentielle la gën a jàpp moom la gën a miir et li mu ko voilà te liñ si liñ si jàppee liñ si miir mooy duñ si sax xool programme duñ si xool agenda duñ si xool dara mooy diw neexatuma na fi jógee diw moom neex na toog voilà ñun Sénégal c'est comme ça que ça fonctionne ma yaakaaroon ne nag fi mu toll nii ba nit ñi demee ba wax vingt et si siècle lu teg donc li jamono laaj mooy que ne dafa war a laaj que ne même boo jàngul école nga mën a woo kenn sax ne ko wax ma programme diw nekkatul far nit ndax yaa ma neex parce que koo fal ndax yaa ma neex maa ngi giñ ci yàlla bés dina ñëw di nga ko bàyyi ndax yaa ma toroxal cest à dama laa fal ndax yaa ma neex mm. suñ doxalee tuuti dinaa la bàyyi ndax yaa ma toroxal mm. parce que ndax yaakaar ga ma amoon ci yow moom ngay tas mm. au nga yëddu la mooy sama programme au lieu nga xool ci man naka laa bëgg a yore réew mi au nga xool ci yan jéego yan pancas laa bëgg a sukkandiku pour réew mi dox tey boo xool lool xool sama jëmm kase su dee amoon boobu matière ak boobu compétence donc suñ demee damay lajj am na solo tey aussi euh, coach nemmeeku nañ ñi euh, ndaw ñi génnuñu voté comme mhm. niñ ko doon a euh, xaare mhm. voilà ñi gën a génn voté moo di personne personnes du troisième mhm. âge ma gis naa ñoo xam ne dañ leen a indi ba ci centre de vote yi pour ñu voté ñoo xam ne ay bant la ñu yor di dox ñoo xam ne sax seen bët neexut ñu leen di indi di leen di pour ñu voté yow loolu ban jàngat nga ci am waaw xam nga moom laa la wax gis nga mun naa wax ne nguur dafa lajji mais opposant yi dañoo lajj parce que buñ dee seet opposant bu fi génn ñaata junni jeune ñoo lay topp ay nit yu bëri mais nit ñu bëri ñoo ñu topp la naka ci xiiroo ci ŋaayoo ci yuuxu ci fecc daw topp la yëg lañ la topp parce que urne yi buñ fàttee moom mooy def di différence xam nga tey euh, Sénégal dafa war woon jaar sax on parle de six mille électeurs parce que benn tey on devrait six millions d'électeurs mm-hmm. on devrait dépasser peut-être euh, ci nombre boobu mm-hmm. et que et que tey beneen bi mooy soo dee seet soo génnee si diaspora bi donte ay trois cent et quelques électeurs la ñu am mais dañuy voter mm-hmm. kon ñun ñi nga xamante ne ñun la vote gënoon yomb parce que diaspora bi di nga gis koo xamante ne dëkk bi muy dëkk pour passe pour dem feneen fi muy voter rek ça lui coûte de l'argent xaalis bu bëri lay laaj mais daf ko koy jaral mu def waaye ñun ñi nga xamante ne dañ lay defal école boo xam wala centre boo xamante ne amaana ca fa nga dëkk lay nekkee ay ñëwen ñu tuuti ñoo ñoo xamante ne dinañ dem dëkk ak dëkk pour voter ji fa dem ba possibilité am sax fa nga dëkk su la neexee nga fexe def ba da ngay voter foofu kon defe naa dajale nañ li waroon yëpp pour nit ki mën a voté xam nga nag léeg ñu doo dañoo faral euh, dama koy faral di wax que ne ñun dañoo tàmm leen léeg dañuy jiñ nguur loo xamante ne ñun la suñu comportement bopp la parce que jug voté ji <laughs> defe naa nag ñun la war loolu acte citoyen c'est un devoir citoyen nit wanee na dëggantaan ci réew mi laa dëkk du question que ne ci laa dëkk rek. ci laa bokk mais ñu bëri dañuy def jàpp ñoom bu ñu ah. lañ koy def. waaw mais xam nga xam nga tey euh, nga voté dafay gënal sax. opposant bi xam nga lool. Mhm. c'est-à-dire yow boo voté benn di nga may doole opposant bi mais ñaareel dinañ xam ci ne président bii nii ba xam bëgg nañ ko wala bëgguñu ko parce que nag attention. tendance su élection yi li mu jot a wane ba tey tekkiwul nañ ñi nekk au pouvoir askan bi daf leen a bañ parce que on a vu certes gis nañ yeewee askan bi day dem fenn day remporter ak doole mais c'est-à-dire fi nga xamante ne dafa am ay taux de électorat bu bu baax da ngay gis ne waa benn bokk yaakaar aussi am nañ fa nombre donc tey enjeu bi moo nekkoon que ne au moins certaines personnes xëy na ont été convaincues par le travail de Macky Sall je peux dire ça mais par contre am na ñeneen ñoo xamante ne aussi wóolootuñ ko ewan nañ ko ko parce que da gis benn centre boobu dañ ko fay gagné ak doole nga xam ne ñii mooy xoolatuñ sax lan la liggéey ak lan la liggéey mooy bëggatuñ ko na fi jógee xam nga wax naa la tout à l'heure ma ne la sénégalais du la jàppale ci compétence la preuve boo dee seet si suñu côté administration ñaata ñu si liggéey te amuñu xam-xam bi ñaata nit nga gis ñu am benn ndombal tànk bi ñu jiite bërëb jànguñu ko xamuñu ko xamuñu nan lay demee ku la dàkk tàcc ku la dàkk fecc ku la dàkk yuuxu nit ki wala ku nit ki jaral moom mu tuur deretam kooku la nit ki di wax yaa am xam-xam yoo lay fal donc tànk ñu ngi dund ci boom et beneen bi mooy wax nga ko tout à l'heure xoolal mag ñi li génn ñaata am pagaay dem ba ñoo xamante ne. a commencé par maître Abdoulaye Wade. ah oui c'est un très bon exemple qu'on salue. te maître Ablaye Wade dafa dafa waroon dafa dafa dafa jam ndaw ñi c'est-à-dire daf leen a jam parce que benn déjà dëkk dëkk la jóge ñaareel bi mooy centre am dafa xawoon xëcc ñetteel bi mooy malgré conditions yi nekk ci centre am yëpp dem na moom moo voté ji donc c'est quelque chose qui est jovial alors que ñun loolu lañ doon xaar defe naa ci ndaw ñi mooy centre yi am buuxante fougue de la jeunesse boobu feeñ. ndaw ñu mun a wane ne atte nañ tey dëgg fii lañ far mais parce que bu ñu gisee ne su euh, politicien bi di génn si si si kaw si kaw télé bi ndaw ñi dañ koy topp. dañuy yuuxoo mais politicien bi suy dem si bañ gàcce gi fi nga xamante ne fa la waree xam-xam kër dëgg fa nga xamante ne lañ war a naataamle fa la wànne du mu mujjee ay gëtam tey foofee ñu waroon dem dooleel ko dañuy sentir que ne ñun ñëpp dañ si croiser le suñu bras léegi dafa ñaar nag ñu ko waral wax naa la def ñu waroon benn ñu wax façon élection yi am lan mooy lan mooy élection locale kan la ñuy tabb lu tax ñu koy tabb lan mooy élection présidentielle kan la ñuy tabb lu tax ñu koy tabb mm-hmm. lan mooy élection législative ñan la ñuy tabb ak lu tax ñu leen di tabb xam nga tey suñu xamoon loola defe naa même ci liste yi commençant ci liste yi sax la ñuy xam ne diw mii suñ ko jiitale suñu liste matul dëpp parce que miinul sax koñ bi bay wax gox goxaat bi xam nga dugguleet nga dégg député fal nañ ko. te mu leer na la leer yàlla yi muy kaas. ça n'intéresse même pas sa population bay intéresser le Sénégal. et que beneen déception bu ma am que j'ose le dire xam nga gis nañ si li si am yëpp on avait investi des jeunes mais pas titulaires suppléants et que su fekkee xam nga xam nga tey ñi falo soo xoolee âge yi ñu am ñi nekk député soo xoolee âge yi ñu am xëy na service Sénégal moo ci amoon ay jeunes yoo xamante ne mun nañ leen compter. ak aar Sénégal aussi ak aar Sénégal voilà ak aar Sénégal bien sûr mais tey que ça soit Benno que ça soit Yewwi Askan bi c'est-à-dire que ça soit Wallu c'est des personnes yoo xamante ne donte yàgg nañ ci ëttu politique mais seen at dafa dafa jéggi te du loolu lañ doon xaar ci sénégalais donc les jeunes ñoom ñoo conscient wul man defe naa jeune bu demee bay intégré ci ay parti danga war a wax ne parti bii nii mooy ñëw bokk dañ may teg soit tête de liste wala au moins du ma génn si quatre premières yi mais déjà doo bokk sax si titulaire yaa ngi dem ci suppléant et que tu te au de investi sur la liste sur quelle liste est-ce que tey bu ñuy football équipe titulaire bi ak ñuy toog maa bokk nañ kon cuune lañ la def nit ñaa jàpp ne yow cuune nga xaaral ba mais mais c'est ça. ah mais coach boo waxee loolu day mel ni kon aussi euh, député yii ñoo am euh, ay cuune lañu. amee ah, xam nga lu tax moo wax non pas yi ñu am ay cuune lañu mais maanaam parti yii ñu am ay cuune lañu parce que cuune mënul weesu ci ñàkk kóolu ay ndaw te nga ne ndaw ngay ah, dem xeexali. da nga wax de ci liste yëpp. maanaam tey dama ne boo xoolee liste yi ndaw yi ay remplaçant lañ dëgg maanaam mag ñi la ñuy jiital ci liste te Sénégal mooy téeméer boo jër juróom benn fukki ak juróom cinq pour cent ay ndaw lañ. Mm-hmm. ñu ne waat waaye fan lañ jëm ñu ne assemblée assemblée ñu ne baatu ñan la baatu askan bi askan bi lañ fete askan bi mooy ñan c'est la jeunesse. mais askan bi bu dee jeunesse te ci biir liste yi dugg lañ si jeunes yi y a problème. wala bu ñu si dugalee jeunes yi ci ginnaaw lañ leen def xam nga li waroon nekk xeexu jeunes yi c'est pas nañu changer bii président nañ changer tel je ne le dis pour rien. si un quelqu'un que je respecte beaucoup muy Ousmane Sonko parce que man nit boo ma joxee cër rek dama la koy delloo et que gis naa estime bu mu am ci man gis naa cër bu mu am ci man on s'appelle on se parle tout le temps au téléphone donc du koo xamante ne au moins dinaa war a mën am xiiroo ak ŋaayoo ak moom et que c'est c'est un quelqu'un que je salue au passage mais je dis bien tey suñ jëloon exemple Ousmane Sonko mi nga xamante ne fi mu toll nii il faut ñu nangul ko ko mm-hmm. Sénégal yi moom lañ jox bopp il faut ñu nangul ko ko ndax tey bu ñuy wax opposant rek moo ci doole tey donte bu fekkee Sénégal ëpp fa doole ndax xëy na sax gis nañ parti au pouvoir tendance si nu mu demee mais tey mun nañ wax ne Sénégal moom lañ jox parce que opposants yi chaque jour si dañuy xaw a bàyyi xel ñii opposé wu kan lañ si gën a doole kon kookoo jara ragal ndax ki nekk au pouvoir mu ngi au pouvoir ba pare kon tey bu doon ki jara ragal dañ naan Sonko moo jara ragal parce que moom moo nekk ci yoon boobu mhm. d'ailleurs beneen biir boo dee ci par rapport ak tendance yi li gis nañ ne moom la am nañ benn travail bu ñu liggéey mais prenons la personne de Ousmane Sonko bu faloo 2024 président il aura 49 ans ci anaalu Sénégal ba tey il sera pas le plus jeune président Macky mooy nekk le plus jeune président parce que Macky Sall n'oublions pas que ne 47 ans lañ ko falee président donc il y a un problème pour nous les jeunes de moins de 35 ans wala sax au moins bu ñu mun non mais tey loolu moo ñu waroon yóbbu assemblée pour ñu kaas. xam nga loolu moom loolu moom kër si gaawagul am. waaw kañ la waroon am ci bii mooy ñu sentir que ne ci élection législative Zénith dañ xeex ba ñu investir ñu nekk député bu ñu nekkee député ñoom ñu kaas lool mooy ñu kaas ne président maanaam lis yi am lis yi ni ñu wax kaasee ba parité dugg te Zénith ndaw ñi ëpp Sénégal dañuy wax lissi lissi yi nga xamante ne mooy ñëw am au Sénégal par la force doole maam soit dañuy jiital benn mag benn gone mais loi lay doon. dañ koy voté. Mhm. majorité remporte. Mhm. mais loolu li koy may doole mooy ndaw ñi nekk dans les instances de prise de décision. opportunité mu ngi woon nii jàll. ils sont pas conscients alors je me pose une question moi ce que je demande mooy est-ce que Sénégal nekkul ne ñun ndaw ñi fi nekk maanaam est-ce que nekkul ne ñun ndaw ñi fi nekk réew mi def ñu ñorul parce que réew mi bu ñu ñoroon. war nañ mën a tàyyi nag ndax ñaata atu yàlla ci ay um politique rek la ñuy topp di daw di yuuxu ñoo ci gën a sonn ci parti yi sax ko ñoom ñoom xam nga lan lañ mën gis nga seen oto foofu ubbeeku noonu tijjeeku noonu def carré carré boobu la ñuy génnee seen yaram yëkkati seeni loxo ci kaw di ko bondel noo loolu lañ mën ñun ñuy yuuxu di daw di sonn di def coono et après alors on gañ gagne xam nga lan lañ mooy amaat ëllëg moom mu toog woo mag yi mu amoon jiital leen seen kanam fal ñooñu parce que yéen a nangoon mu jiital ñooñu ngeen ne bon dafa falu ba pare fàtte ñu fàttewu leen yéen a nangoon ci liste yi mu jiital ñooñu kon su koy topp ak hiérarchie ñooñu lay fal ñooñu lay jox poste ñooñu lay dénk ay ministre ñooñu lay dénk ay tel tel tel tel tel léegi yéen ndaw ñi xam nga lu ngeen am te est-ce que gisagum nañ ministre de la jeunesse au Sénégal atam yées trente cinq ans. ah loolu déjà c'est a problème. ba te nga ne jeune ngay jiite donc xam nga gis nga ni ñuy waxee ministre de la santé ñu ne docteur la war a nekk. Mm-hmm. ministre de l'intérieur dafa war a doon koo xamante ne dafay am expérience armée. Mm-hmm. cest à yooyu day tax ba systématiquement day régler la système. parce que day comprendre la chose mooy fi muy dem du ci gan li nga koy dénk du ci gan xam-xam la ciy demee mais gis nga Sénégal ku daa ko wax yaa jiite. ku dàq ku sos yow la ñuy gën a gëm parce que ñun du ñu vérifier ay ana non je le dis. dégg naa dëgg te. Sénégal du ñu vérifier waxam wax ci dëgg la wala te gis nga suma la xasee ba bëgg soo waxoon waa ji yére bu ruus la sol ñu xool la nii nga sol yére bu sol dañ naan yére bu ruus dañ koy werante na yére bu ruus parce que yow lañ bëgg quand on t'aime loo wax loola la c'est un problème. Hmm. mais coach bëggoon naa xam aussi euh, quatorzième législature bi. Mhm. Euh, wax nga ko sànq liste suppléant daanaka yeewi askan wi mhm. ñoom ñoo dem mhm. ah, te ñoom euh, pratiquement ñoo gagné la majorité euh, mhm. fii Dakar donc ban façon ban genre de législature on peut s'attendre parce que ci sa biir wax sànq ne nga suppléant yi ay remplaçant lañ te la plupart de manière général mooy mooy loolu ah, voilà mun naa xam léegi ñun à quoi on doit s'attendre pour cette quatorzième législature xam nga xam nga fi mu toll nii si côté Yewwi mooy dinañ gis lu surprendre ñu bëri. Mhm. dinañ gis loo xamante ne c'est une première. Mhm. parce que no pas que ne comme vous l'avez mhm. comme liste suppléant bi moom moo jàll. moo tëb donc ce qui fait ci man li ma li may njëkk xalaat mooy est-ce que dans cette liste. il y en a des d'abord. Parce que no on ne voit que nom et fonction. On ne voit que nom et profession. On ne voit pas l'âge. mais si toutefois que am na ay ndaw mun nañ xaw a jug sax nooyu tuuti respirer waat parce que on va se dire que ne xëy na ñañu yaakaaroon ñooy remplacer maintenant poson nous une question est-ce que ay nit yu pare lañ parce que quand on dit que ne remplaçant ñuy dugg jouer final bi donc y a léegi nag mais mais nag mun na jàll bu fekkee ñoom démocratie moo leen ñor mun na jàll bu fekkee ñoom réew mi moo leen ñor mun na jàll bu fekkee du alalu àdduna moo leen ñor comment ña nga xamante ne ñoom leen jiitaloon wóolu leen ci xam-xam bu ñu doolelee ñii nga xamante ne ñoom lañ yaakaaroon ñoo yées ñuy weccante xalaat di pencoo saa seen biir su boobaa je peux dire que ne parce que ñun ñëpp bu ñu bokkee di défendre la même sos tout parole peut être bienvenue ndax bu ci nekk rek su ñëwee rek dañ koy jàppee que ne bii bu baax la ñu xool naka lañ koy càmbare ndax ku ci nekk ñoo bokk la ñuy mais lii xew ci politique xam nga mooy lan mën nañ bokk parti mais ku ci nekk danaan dooma raw lu tax nga jiital diw jiitaloo ma daf koy jaral sax mu bàyyi parti bi bu dem feneen y en a pas mal de problèmes qui existent au sein de nos partis donc loolu rek ay tolof tolof la maintenant voyons voir comment ça va se faire ou comment ça sera au niveau de Yewwi Askan Wi gis nga laaj bi ngay laaj man parfois koy laaj parce que je me rappelle bien bërki euh, toog naa ci benn bi ñuy wax wax yi je dis lan mooy xew ji après au sein de Yewwi Askan jusque la hauteur. est-ce qu'ils seront que nag waxee ne. remplaçant mhm. la ñuy teg mu football final bi. c'est vrai parce que bokkut ak titulaire yi. Mhm. donc est-ce que remplaçant la tax ñu woowee woon leen baatu remplaçant est-ce que compétence bi ñuy xaar si ñoom mu ngi si. dëgg la parce que li nga wax ni dafa am solo coach parce que ñoom je euh, sais que ils ne s'attendaient pas à et député parce que liste titulaire moo waroon a jàll. léegi tey euh, invalidé nañu euh, liste titulaire bi suppléant bi moo dem te est-ce qu'ils étaient préparés à être députés j'ai un collègue analyste Babacar Thiam donc euh, dañoo toog biir démb këram di waxtaan mu ne ma gars yi rëy nañu wërsëg de mhm. effectivement ré nañu wërsëg mhm. parce que boo dee seet kenn sóoraale wu leen woon maintenant tey ñoom it le lance un défi se maintenant ou jamais pour que ñu montrer que ne même buñ jiitalaan ñële mhm. xëy na ñun ñooy les personnes de haute du parti et beneen bi mooy tey euh, ñooñee donte dañu leen a jiital donte dañoo doon ñoo xamante ne xëy na ñoom lañ gënoon wóolu mais ñoom itam war ñu doon ñoo xamante ne dañuy tëdd naax saay bàyyi lépp mu jàll. Mm-hmm. tey war nañ gën a mën a motiver wu. war nañ gën a mën a am engagement war nañ gën a mën a am détermination. Mm-hmm. mais fii nag la ñuy xamee ba xam parti Yewwi Askan Wi c'est un partie de haute facture. Mm-hmm. parce que parti école lay doon na woon naa waa PS trop ci parti bi ñu am da daan jàngal sax ci ni jeune ana lan mooy politique mm-hmm. naka la ñuy politiquer stratégie de communication naka la ñuy aborder la population et tout ça maintenant c'est maintenant ou jamais beneen bi mooy lillahi wa rasuli du seen ñoom du waa yeewu askan du benn dama koy ñaan parti yëpp serviteur ñëpp képp ku muntu doon ngala nañu changé xar kanamu assemblée. Mm. bàyyi tàccoog fecc xiiroo ŋaayoo dàgg sant fii xëcc parce que on leur donne nos millions. oto lañ leen di jox. Mm-hmm. bon de carburant boo xamante ne c' est des millions. Mm-hmm. salaire bi ñu am macha allah. Mm-hmm. donc ñooñu mënuñu leen ko jox passeport de fu la neex nga tambaamalu. alors on ne peut pas réunir tous ces problèmes pour un pays comme le Sénégal ñëpp xam ni dëkk bi demee. maanaam dafa dem ba mu jig léegi am am bi day féete boor ñi ñàkk gën a ñàkk mën a teg leneen yooyu situation boo ci delloo ndeysaan euh, je me rappelle bien c'était au Bénin lorsque j'avais euh, eu à représenter l'Union africaine à la gestion des conflits donc problème bi ñu amoon il y avait un gars docteur Maoumba Chodoui c'est-à-dire moom c'était un député maintenant dañ ko fay xaalis mu ne gox bi mu jógee dafay taa dafay inondé moo tax mu révolté woon pour nekk député mais dafay wax ne lii muy am ci salaire otom bi nañ ko jaay nee na moom mun na jël taxi di ñëw mais li muy am ci salaire yépp nañ ko ko defal si koñ boobu koñ bi di belli alors ban exemple ñu am Sénégal fii dañ naan waaye yow dal naa si balaa maa def kenn xaama dimbali samay mbokk dimbali sama bopp cest kañ la ñuy am une personne bu am engagement dëkkam dong ñor ko réewam dong ñor ko ça reste à parce que nit ñi nag li ñuy wax ci kaw ak nit ñuy jëfee Sylvie hmm, non c'est diamétralement hmm, opposé hmm, et que liy garaaw mooy sénégalais buy wax toog ak yow jàkkaarloo di wax def discours am ci waa di laay leela laa yee waajaa ngi nii gis nga waa jaa ngi nii boo gis beneen jour dinañ la waxaat waa jaa ngi nii de mais waa jaa ngi nii bi mooy wute dañ naan dóorkat gaa ngi nii eh waa jaa ngi nii parce que dóorkat ngay mujj doon si ñoom. Mm-hmm. donc il faut que ndaw ñi yeewu il faut que jeunesse fi yeewu et que par rapport ak yeewi askan wi nañu xam ne nag nit ñi ñu ngi leen xaar ci lu bëri et attention encore yeewi gis nañ tendance yu ñu def mooy si élection yi wane nañ seen bopp élection locale yi wane nañ seen bopp mais dama gis ne élection locale yi ak léegi. donte am na juróomi weer mais tey boo dee seet xëy na gisuguma ñu concentré wu ci seen liggéey. ba tey ci côté politique te bu yàggee dafa lay yàqal. ndax dañu naan dañuy évaluer ñu xool loo fi def diiru deux ans yi mais diiru deux ans bu ñu la ko dénkee ay gox goxaat mënoo ko defar kon est-ce que dina dénk réew une équation. <laughs> voilà mbokk auditeurs yi may fàttali yéen a ngi déglu seen émission sans filtre ñu dalal euh, le plus jeune coach fii ci Sénégal Moustapha Sy ñu fekk si ko fii tey këram bi Guédiawaye dans son bureau euh, fas yéene waxtaan ak moom euh, coach est-ce que tey la plupart gis naa jeunes yi man déjà am na ci koo xam ne sax invité woon naa ko mais mercredi passé il est devenu député. super est-ce que est-ce que mënul nekk est-ce que munul nekk benn atout le fait que pour cette quatorzième législature jeunesse yi même bu dul même bu dul nekk majorité de jeunes. mais jeunes yi dinañ ci bëri parce que déjà liste suppléants yi rek y a beaucoup de jeunes pour la coalition Yewwi Askan Wi ak yeneen ak yeneen coalition euh, yi nga xam ne am na ay ndaw ci biir est-ce que loolu du atout donte peut-être amuñu expérience pour nekk député est-ce que du doon atout peut-être euh, pour affaire changer c'est quoi expérience le fait mu nekk jeune waaw non xam nga xam nga gis nga euh, idée booba ndaw mooy jàng ndaw mooy am xam-xam ndaw mooy am doole ndaw la yàlla soxla ndaw la yàlla gërëm ndaw la yàlla di àtte ndaw la yàlla di topp donc tout fait à travers la jeunesse par la jeunesse et pour la jeunesse donc ndaw la ñu soxla réew moo dem su fa ndaw ñi ëppee rek dañ ñuy taxaw nag laaj wax ma ñen ñooy say ndaw ñu wax la lan mooy sa avenir ëllëg su boobaa mooy bu dee ndaw ñi ñoom am pas-pas lañ ñu toog biir assemblée lañ ngir Sénégal rek ñor leen parce que defe naa ndaw ñëpp ñiy dellu assemblée wala ñi nga xamante ne guleet ñu nekk assemblée benn objectif la ñu war a am euh, mooy que ne changer xar kanamu tey dama sant yàlla leen Sylvie defe naa man ñi ma doon invité sept ans ci ginnaaw huit ans ci ginnaaw chaque jour sama parole benn la woon que les jeunes puissent accéder dans les instances de prise de décision kon tey suñ demee ba gis ndaw ñi ñi accéder dans les instances de prise de décision on peut dire alhamdulilah mm-hmm. mais du wax alhamdulilah lu dul ndaw ñi def majorité parce que ndaw ñi ñoo ëpp ci réew mi ndaw ñi ñoo war a ëpp doole ci réew mi ndaw ñi ñoo war a waxal réew mi ndax docteur lu mu ay ay ay ay ay ay bu lay faj dalay laaj fuy metti mm. luy sa jàngoro kon yow yaa ko war a gën a mën a xam sa jàngoro et que ñun ñoo fi ëpp ñun ñoo war a gën a xam suñ jàngoro alors ñii nekk nag assemblée il faut que nous les jeunes muy man muy yow muy keneen ak keneen ñu lancé leen benn défi défi bi c'est quoi mooy keneen ndaw lañ doon xeex ndaw lañ doon ñaan ñu nekk biir assemblée te ndaw ñi laataa ñuy ñëw bu ñu leen daan seetaan di leen gis dañu doon gis tàcco fa ëppoon mm-hmm. fecc fa ëppoon il faut que ndaw ñi sax mu bokk ci seeni discours benn mu posé wu carré ñu xam ne ñii di wax boroom xam-xam lañ bopp la ñuy wax na ko jaral sax ñu gëstu ko même bu jaree ñun ndaw ñu ñu wut benn cadre synergie boo xamante ne benn cadre boo xamante ne au moins tey si la ñuy partager suñuy idée si la ñuy toog waxtaan na doon soit par internet la par via moo xam lu mu munti doon mais l'essentiel mooy fu ndaw ñi di waxee lan mooy seen problème de manière jeune de manière jeune ku ne wax lan mooy seen problème lan lañ soxla yan changement la ñu am su boobaa ñooñu doon baatu askan bi te nekk ay ndaw suñu demee ci fa nga xamante ne la ñuy nasee di fa noccee ñu mun ñu faa teewal mais ñoom it buñ dul gës parce que Sénégal rek ngay gis leen ngay buux nit kii ba mu falu mu lay romb di la jaay affaire fekk fàtte ne démb yaa ko faloon léegi bon je suis un jeune mais je suis un jeune boo xamante ne véhiculé damay gis président chaque jour maa ngi toog si nguur maintenant léegi kenn laa ci réew mi et tu oublies toutes les personnes yi nga xamante ne ñoo la doole loon laata il faut que nag ndaw ñi pour ñu changer comportement réew mi pour que ñu defar réew mi pour que ñu dooleel askan bi il faut que ñoom itam ñu fexe changer xar kanamu assemblée dootul am tàccu dootul am fecc dootul am xiiroog ngaayo mais day am wax dëgg respect ko c'est-à-dire je peux que ne doomu aadama mun nga wax li la neex te doo yuuxu doo xuloo doo xase quand les gens parlent wala sànnay fële yu munta doon mun nga leen tontu te doo leen dépassé mais dëgg-dëgg la la vérité mais Sénégal politique bi ma am mooy ku la dàkk yuuxu moo la dàkk politique ku la dàkk dàgg sante moo la dàkk politique ku la dàkk xiiroo moo la dàkk politique est-ce que y a une part quelque part dans la définition de la politique où on de xiiroo et de l'art de gouverner mm-hmm. la cité mm-hmm. et qui dit mooy que ne stratégie communication aperçu ak xool projet yéen nga mën a def pour mun a sukkali Sénégal. Mm. mais kon si say wax man bu la déggee de benn yow amoo benn yaakaar ci législature bi. non cest à pas awma benn yaakaar xam nga yaakaar mënul woon weesu la fekk rek ñoom ay ndaw ñu yëg ne ndaw ñi léegi ñu ngi dem ci fa ñuy nase loolu mbégte la du question de yaakaar mbégte la maintenant je le lance un défi cest à en tant que coach du ma dundee yaakaar parce que dundee yaakaar mooy tu en train de tâtonner tu es en de voir parce que quand on te dit analyse que tu dois analyser les choses mooy soo dundee yaakaar ça reste je dis on le lance un défi et le défi c'est quoi mooy une fois à l'assemblée ñu changé xar kanamu assemblée xiiroo ngaak yëpp ñu def ko ci pochette fexe nag sukkale lu bees mooy waxee xam-xam pour wan ne nit ñi ne yéen a ñuy yaboon yéen a ñu doon fontoo yaakaar ne si biir parti ñun seen ginnaaw la ñu war a toll mais ñun ñooy borom xam-xam yi et su boobaa dina motiver ci élection sa présidentielle yi ñuy dem mu am benn jeune bu jug ne parti laa tijji parti bi c'est un parti de jeunes pour les jeunes et par les jeunes su boobaa di nga gis jeunes yi am ambition yépp dinañ dem dooleel parti bi génie mais c'est-à-dire tant boobu philosophie amuñu ko mooy mag ñi mënuñu fi jóge parce que mag ñi tant que remarqué wuñu ne ay ndaw nag ndaw ñi léegi yeewu nañ te yeew bi ñu yeew mooy yeewuñu pour aligné wu si ginnaaw ay mag mais dañoo yeew pour dem nag seeni bopp am alignement wu jeune wane ne tout se fait par la jeunesse et pour la jeunesse parce que ñun ñoo am xam-xam bi xam nga yàgg ci ëttu politique mais ñaata nit nga gis ñuy politique te jànguñu politique am pagaay lan la mooy dañoo yàgg ci tàccoog fecc ak sol ti seet ak yow di banderoog yooyu mais léegi ñi nekk à l'université di suivre science politique nag ñooñu pour lan la def ko des années am seeni doctorat et tout ça mais c'est ay jeunes lañ est que comprendre nañu politique kon est-ce que gënuñu ko comprendre ñooñu di xiiroo ngaayo est-ce que gënuñu xam enjeu yi il faut que les jeunes d'abord ay côtoyer ces experts politiques de jeunes ñi nga xamante ne ay ndaw lañ yàlla may leen seen xam-xam màcc ci wàllu politique que ça soit ci wàllu communication que ça soit ci wàllu projet fexe naat maanaam root si ñooñu taataangal si ñooñu pour mun a sukkali Sénégal incha allah. Mm. Euh, quinze minutes moo ñu deseel coach euh, est-ce que euh, ñëw Ablaye Wade à la dernière minute de la campagne. Mm-hmm. est-ce que am na dara lu mu changé ci victoire intercoalition yi ak Wallu. waaw xam nga am na lu bëri lu mu changé nag mun naa la sital ñett on a tous remarqué ne mag ñi ñoo ëpp li ñu voté. Mhm. mag ñi bu ñuy voté Ablaye Wade tax ñuy voté. il faut qu'on ose le bu ñu mënee mag ñi bu ñu mënee bàyyi seeni kër tëj ko ànd ak seeni doom ak seeni sët ñu jàpp leen ngir ñu ñëw voté si cest dire góor gi moo ko tax parce que xëy na ñoom ñu bëri dañ doon jooyaat le retour de Abdoulaye Wade xam nga nee naa politique ku ci nekk da am ko bëgg au Sénégal. Mhm. dañ doon jooyaat le retour de Abdoulaye Wade. te mag ñi ñoom dañoo loyal. voilà et beneen bi mooy ñëwum Abdoulaye Wade n'oublions pas que ne Abdoulaye Wade Sénégalais du opposé ba gën a yàgg opposant Abdoulaye Wade li mu opposé wu kenn opposé wu ko. Mhm. mais nag au pouvoir aussi daf cee toog toogaat ci. kon donc tey it nit la boo xamante ne ñam na fee ñam na fee difficulté àdduna bu ne ci politique yi dund na ko mhm. daj na ko am na coono boobu kon kooku tey ci réew mu mel ne Sénégal mu maîtriser ko xam ko yoroon ko ñëpp war kaa nangul ne maîtriser na Sénégal même bu Sénégal amee ay changement maîtriser na ko et la preuve même Macky mi fi toog c' était un quelqu'un qui partageait avec Ablaye Wade mi fi gis c' était un quelqu'un qui partageait avec Ablaye Wade donc même si c'est pas sa génération qui politi euh, politise aujourd'hui le Sénégal mais peut-être c' est des personnes yoo xamante ne bokkoonoon nañ si ëtt politique doxoonoon nañ te moom la ñu waxoon mooy seen bàyyi ñoo si nekkoon ko donc le retour de Ablaye Wade rien d'autre que tey ñu gisoon làmb loo ko yab yab yab di nga ko sóoraale ndax ñaar benn c'était un roi des arènes mais c'est un quelqu'un de haute facture bu mun bëree kon donc Ablaye Wade mënuñu ko yambaral mënuñu ko jàppee ne saa et que beneen bi mooy wax nga nañ si intercoalition bi nga xamante ne moom la am ak euh, Yewwi ça va leur aider à l'assemblée comment si toutefois qu'on a quelque chose à voter par majorité et que ñu gis ne tey bu ñu boolee wàllu boolee euh, yeewi si le nombre est un peu pesant donc y a problème par rapport ak Benno dañuy am problème et l'objectif l'idée c'était ça boobu stratégie rek lañ bëggoon mooy plus de députés du côté de Wallu comme du côté de euh, Yewwi Askan Wi pour que même bu leen Benno euh, gagné ñoom bu ñu demee foofu suñu xoolee ñoom ñu gañe leen stratégie boobu kase la maanaam Benno mun na leen gañe mun na par parti bu ci nekk moo pale député mais est-ce que bu ñu cumuler parti Yewwi ak kii est-ce que ñoom lu ñu ëpp député tout ça ça reste à parce que jusque là on n'a pas encore les résultats mmh. en tant que tel définitifs donc il faut que au moins ñun ñu xaw a toog xaar maintenant attention si tout toutefois que les résultats définitifs sortent et que ñu sentir que ne cumulé biy def diggante wàllu ak yeewi ça dépasse li nga xamante ne mooy benn Bokk Yaakaar dites-vous que ne Macky n'ira même pas troisième mandat même bu fekkee loi ak constitution nag may na ko mu dem troisième mandat ci ba leen yóbbee woon ci référendum oui u non ñoom ñoo ko voté pour ñu écarter mandat wu sept ans def léegi deux mandats de cinq ans et l'écriture ay été claire on a dit deux mandats de cinq ans chaque jour dañu gis Sénégal di polémique dañuy jaxase xelu askan mais qu'on parle la vérité quoi si ñu lire article yi on a dit deux de cinq an maanaa maanaam mandat de sept ans suñ ko supprimer ñu wax deux mandats de cinq ans mooy le président a le droit toog benn mandat wu cinq ans toogaat beneen mandat wu cinq ans donc su boobaa bu ñu koy xayma demee ne troisième mandat la toog parce que trois mandats la effectivement alors bu ñu waxoon nag mandat de sept bi moo continuer su toogee bi warul mën a demaat élection sax ba naan waxu toog ndax toog na deux mandats mi ba pare. mais ci mandat de cinq ans benn mandat la ci toog te ñoom ñoo ko voté woon wiiwu noo parce que boobu majorité bi mu fa amoon la leen ëpp ëppale xëy na bii xëy na bii su fekkee fii ak deux mille vingt quatre ñëwagul donc ce qui fait que ñoom bu ñu gañee législative yi ak doole am majorité su la neexee ñu da appelé au référendum wax nañ ak troisième mandat yi du am dañuy changé waat lii boobu noonu su boobaa bu ñu ko voté suñ gagné ah mais xëy na loolu mun na doon opportunité bi ñu gisoon wala stratégie bi ñu gisoon ñu ne attends ce qu'on va faire mooy pour daaneel waa ji ñun dañuy def intercoalition suñ ko ëppalee foofu ñu dooleel kii waaju du dem te euh, tey aussi gis nañu maître Abdoulaye Wade ah. euh, li ko fi jële woon sax bokk na si le fait que mu buggoon teg fi Karim Wade te ah. ñu si bëri ànduñu si ah. tey est mënuñu euh, wax possibilité la mu quitté Yewwi Askan Wi dem ànd ak président Macky Sall. Mhm. parce que euh, tey bu dee résultat définitif yi. parce que mhm. tendance bi déjà. Ah, wane na ni lépp yi ñoom ñooy gagné. donc Macky dootul songer à troisième mandat est-ce que tey amul possibilité waad euh, wallu dem ànd ak Benno parce que ku ne xam na ni. Euh, makki lu mu mun a muñal Karim Wade Sonko du ko def. waaw ah, ba pare beneen bi mooy su boobaa mooy makki su bëggee rendi sonk ba mu jeex. voilà boobaa majorité lay am. voilà daf koy jaral ñoom ñaar ñu ànd ba pare mais bu ñu àndeex xel mun na nangu sox ñuy dem élection ñu jiital Karim Wade ci élection wala soit ñu ne nañ leen dem élection deuxième tour bu amee ñoom ñu allié aussi. si la loolu yëpp mun na nekk c'est-à-dire fi mu toll nii c'est le messie de la législative fi mu toll ni Wade c'est la seule personne bi nga xamante ne moom lañ mën a moo yor enjeu bi pourquoi parce que tey dem na intercoalition mais nag c'est pas que ce qui est définitif fan lay fari après mu ngi weecu si su résultat ay noppee nag moom mu xool fan lay allié Wade mun na ànd ak Sonko mooy Macky est mort Mm-hmm. mais, mais est-ce que bu àndee ak Sonko euh, aussi dina am sympathie wu population bi parce que gis nañ transhumant yi ni ñu mujje ñoom ñëpp lañ leen seen même bureau de vote bi ñu voté dañ leen battre ba pare beneen bi mooy su àndeek Sonko nit ñi dinañ leen delloo vaar birki de mu moñ njaay lañ doon xuloo cest à bu ànd ak Sonko nit ñi dañ nañ leen dem vaar ne bërki démb mondial lañ doon xuloo donc mooy dootu nekk politique moo ne mais Sénégal lañ salteel kon Sénégal ñoru leen xam nga gis nga pourquoi politique c'est trop dangereux c'est quelque chose qui est tellement extrêmement pourquoi parce que tey boo ciy dem ni nga ciy demee mais askan bi niñ lay xoolee ak yow na nga cay demee moo dul bokk askan bi ku ci nekk daa am point de vue boppam ku ci nekk daa am gis-gisu boppam am na koo xamante ne da ngay def lu bon sax muy gis ne lu baax la mais am na koo xamante ne par contre loo munti def day mel ni Sylvie dina toog analyser ko càmbar ko xool ko waaye jour boo juumee ba mu am ci ndëgg sër bu dëgër boo xamante ne mën na la si dal tey nga dee média yëpp fa la c'est pourquoi vaar ñaata nit lañ fiy vaar ñaata nit Ousmane Sonko vaaruñu ko fi Macky Sall ko fi Abdoulaye Wade vaaruñu ko fi mais ñaata nit lañ fiy vaar de jour en jour dañ leen di vaar parce que moment bañ doon wax mooy nafsu la ñuy waxee bakkan la ñuy waxee waxuñu pour xalaat lan mooy doon conséquence yi alors que fi mu toll nii ki gën a muus mooy kii xalaat ne ndaw réew ñi yeewu nañ ci indil la vaar indi la ay conséquences parce que dañuy topp yëf fii ba keroog fi mu mën a yem ci ñoom. Mmh. sept minutes moo ñu deseel. Mmh. tey yow lan ngay dénk quatorzième législature bi. waaw euh, li ma leen di dénk déjà mooy benn. ndaw ñi lay dénk parce que man yàlla daal dogal je la pour la jeunesse comme j'ai toujours été là pour la jeunesse je serai toujours là pour la jeunesse par contre certaines personnes m'appellent coach pour ka doo def politique et tout ça je leur dis ne yàlla dogal na je travaille avec tous les partis presque et que ñi may liggéeyal ñëpp ci stratégie de communication laay liggéey ak ñoom mais à chaque fois je leur invite à ce que ñu woo les jeunes ñu liggéey ak jeunes même bu muy bind. ci loolu laay bind mooy que ne fexeel def de telle sort que ndaw ñi jiitu ci seeni yëf ndaw ñi am doole ci seeni yëf alors li ñuy dénk ndaw ñiy dem suñ demee dañ xar kanamu assemblée li ñuy dénk mag muskalaf yi nga xamante ne ñoo fay nekk it ngalawaay nañu tàyyi ci xiiroo ak ŋaayoo te Sénégal ñor leen ngir ñu sukkali Sénégal ndax nag mag baax na ndaw baax na xam-xam mooy dëgg mooy lii àtte nekkatul mu yuuxu la pour ma jaxase la nekkatul ma saaga la ma xas la pour ma tuutee la mais lépp solo mooy may waxee xam-xam muy loo ko bañ-bañ lu mu nakari nakari boo demee ba tëdd sa lal da ngay xam ne kii dëgg la waxee ndax ci xam-xam la ko teg te ku waxul ci xam-xam rek mooy ay fen ngay sos te yal nañ ci yàlla musal en somme chemay que ne ñun ñëpp ñu jàppee Sénégal suñu Sénégal Sénégal rek ñor ñu ñu fexe ba sukkali Sénégal et pour loolu nag am mooy que ne biir assemblée nga xamante ne mooy les dans les instances de prise de décision bi gën a ngande tey euh, ci Sénégal fi nga xamante ne fa la ñuy nasee di fa noccee yàlla nañu fa teewal si jàmm et li ñuy wax mu doon jàmm alors autre chose aussi euh, mu doon message bu mooy lancé ci ci ci Sénégal mooy il faut que que ça soit muy opposant que ça soit muy ñi nga xamante ne ñoo nekk au pouvoir élection yi am comme ñu ni ñuy defee ay extrait vidéo di expliquer nit ñi nañ koy def sous format kii di ko wan nit ñi nga xamante ne naka ne même par rapport ak vote gis nañu ñu bëri inscrire ñu leen ñu bëri ki wuñu problème mm. cardan yooyu yëpp nekkoon ay problème donc c'est maintenant parce que bu leen dong ñor même opposant bu ko bu ko nañ mooy vote rek ñor ndax xëy na ñooñu noonu tey cardan yooyu na doon ay dooleem mm-hmm. nañ fexe rek sensibiliser nit ñi conscientiser nit ñi ba Sénégal gi yëpp maintenant xam lan mooy vote naka la ñuy voté le pourquoi ñuy am cardan naka lañ ko dee fan la ñuy voté ak naka la ñuy dem ba yegg si incha allah mm-hmm. merci beaucoup coach mm-hmm. ma laaj la une dernière question rek euh, tey ma ñëw ba Géejawaay euh, seen maire bi ndax yéen a ngi gis déjà c'est vrai que ba ñu toogee ba léegi mm-hmm. euh, yàggul mm-hmm. nu leen gisee taxawaayam ci population bi. waaw xam nga man nag nee naa la léeg-léeg damay xaw a maanu tuuti di wax ci sur une personne politique waa mais d'après ay échos yu ñuy dégg benn conseil rek laa koy jox mooy mu xaw a concentré wu tuuti ci liggéeyam. ndax dañ ko fi fal pour mu liggéey te yàggul gis nga benn cinq comme benn vuf mm-hmm. dafay gaaw ça passe vite boo amul xel demoo ci ak stratégie rek bis booy lajj daf lay bett xëy na nag dina doon juróomi at yooyu toog mais liggéey moo ëpp solo ndax bu ñu la faree ngir liggéey bu ñu fàtte ne kiñ jëlee fii géejawaay kenn mënul teg sa loxo ci kaam bi wax na liggéeyul woon mais dafa demoon ba xëy na waa Géejuwaay moo leen moom moo leen neexatul soit xëy na ñu ne Ousmane Sonko ñëw naa ak ample parce que Ahmed Aïdara c'est pas la personne de Ahmed Aïdara lañ fal mais Ahmed Aïdara yeewi askan bi moo ko dooleel ak Géejuwaay donc bu fekkee fal nañ yeewi askan bi il it Ousmane Sonko ak ay leader am ñi nga xamante ne ñoom lañ teg si ay leader muy dajale ñooñu di waxtaan ak ñoom mais bu fekkee moom mi jiitu. muy bëgg chaque jour dem ci conférence de presse par ci par là ko jëf yi xëcc lu ñu baatu wax ak tontu xëcc leneen leeral bu yàggee yow boo liggéeyul sax ñeneen ñi duñ mën a liggéey et bu ñu fàttee ne wax naa la sànq dañ leen a sas dañ leen a fal. xaar leen fii ak deux ans mooy diggante deux mille vingt deux deux mille vingt quatre ñuy dem élection na Sénégal yépp nag laa ubbi seen gën balaa ñuy falaat qui que ce soit nañu xool ba xam ña ñu faloon ca nañ leen faloon. Mm. est-ce que ñoom ñu ngi ciy doxal su dee doxal xel nag war na mën a nangu jox leen seen sens ndax nag askan bi jox nañ leen bopp mais si toutefois que ñu sentir que ne ñooñu dañoo lajj nañ xam ne ne mu neex ñu mu nakkaru ñu buñ ko doolee leen ndax bëgg-bëgg bés dee ñëwaat ñu lajj salaamaaleykum wa rahmatulah. en tout cas merci coach Moustapha ñu ngi lay sant di la gërëm euh, ci sa disponibilité ma bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw euh, di sant di gërëm képp koo xamante ne yaa ngi doon déglu à travers mi FM ci sans filtre alors di wax ne émission bi comme je l'ai dit sama émission bopp la mm. defe naa maa ko tijji woon loolu rek mbégte la woon. te incha allah yal na juri ay émission yu émission yàlla na doon émission bi Sénégal yëpp di toog di xaar yàlla na doon émission bi nga xamante ne Sylvie di nga si am sa teraanga àdduna ak lépp incha allah alors di dénk Sénégal yëpp wax na Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a defar waaye bu yàqoon nañ nangu ne ñun ñoo ko yàq ñun suñu bopp et tey ndaw ñi ginaaw ñun ñoo fi ëpp ginnaaw ñun ñoo war a am doole ñun ñoo war a am xam-xam. ñun ñoo war a mën a xar suñ tànk tubéy nag ngir defar Sénégal leneen li may tàggatoo mooy ginnaaw bi nga xamante ne tey am nañ ay ndaw yu nekk biir assemblée ndaw ñooñu nañ ñu fa teewal waaye ndaw ñooñu nañ changé xar kanamu assemblée nañ changé xar kanamu sox politique laa wax ñu xam ne politique nekkatul tàccoog leneen ak leneen mais politique dafa doon loo xamante ne dignité moo koy def nit bu ëmbul moo koy def waaye nit bu honnête moo koy def nit boo xamante ne dëgg rek moo lay ñor ci dëgg ngay dox dëgg ngay dem ba dina tax foo gersu di nga xam ne dëgg rek nga fa bàyyoon parce que nit li nga sotti ci mbedd rek bu ragal a jaaraat foofu ndax boo fa jaaraatee moom nga fay fekk mbedd boo bàyyi dëkk boo fa jaaraatee dëgg nga fay fekk en somme yàlla na jàmm yàgg Sénégal di rafetlu très sincèrement élection yi ni ñu jàlle parce que nag il faut qu'on ose le dire ay élection la yoo xamante ne ci transparence la demee élection yooyu loo xamante ne tey mën nañ wax ne tey amul benn problème bu ñu am par rapport ak matériel rek ak lépp lu mu munti doon donc conditions yi mu waroon am yëpp jàll nañ ci dans de très bonnes conditions ñaan it yal na résultat définitif yi suy génn mu génn dans de très bonnes conditions et mu am benn problème bu mu am benn xiiroo bu mu am benn ŋaayoo bu mu am benn yuux que ça soit muy opposant bu gagné ñi nga xamante ñuy au il faut qu'on l'accepte ñu xam ne élection la mais il faut que opposant yi xam ne ki nekk au am na doole wu noo xamante ne mun na gagné élection yu munta doon il faut que aussi qu'on l'accepte mm-hmm. voilà en somme c'était ça et que di la sant di la gërëm di la merci beaucoup coach euh, yow mu ñëw dalal vraiment tey yaa ñu dalal <laughs> voilà di ko sant di ko gërëm bu baax ci disponibilité bi euh, donc di gërëm mboolem euh, déglukat bi ñu doon bàyyi xel Bachir Cissé mu nekkoon technique mbokk yi ñu dig daje mercredi bi di ñëw beneen thème ak beneen invité.